liggéeyoon am alal ju bari nga lan nga ci njëkk a def fii day mel ni Paris fii day mel ni Paris sa koñ ngay jël dafa ko ba mu mel ni Paris loolu ngay njëkk a def question suivante bi comme ni may wax ak yow nga xëy un jour ñu ne la am nga benn benn oh comme nii may wax ak nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jële ko fi lan nga fi jële benn baat boo ne lii jële leen ko fi ñu jële ko fi benn baat hmm. loo fi jële ñu ngi jëlee bi lañ fiy jëlee préfet bi nga fiy jëlee préfet de Dakar moom nga fiy jële benn baat da nga naan jëlee leen fi préfet bi question suivante bi bi nga juddoo bi nga juddoo ba tey ji may wax ak yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak jour boobu la nga dund jour boo xam ne da nga kontaan xool sedd ba nga yëg ko ban jour la kontaan xool sedd ba nga yëg waaw amagul quoi nag mosoo dund ci àdduna loo xam ne sedd na sa xol non bëri na. jël ci benn séddoo ko non waxuma la li nga gën a bëgg mais li nga jot a dund ci àdduna loo xam ne sedd na sa xol nga jël ci benn séddoo ko ñu la séddaat waaw. Magal Touba. Magal Touba. jour Magal Touba. da ngay kontaan sa xol day sedd. noonu la fa demee. question suivante bi. ban jour moo la gën a métti ci àdduna ak jour boobu la nga dund jour boo xam ne da nga yëg naqar tiis ba nga xam ne am nga la métti. loolu moom ma koy tontu ko wax damay métti jël ci benn rek loo xam ne na naqari na la ci àdduna loo xam ne dund nga ko nga séddoo ko ak ñi lay seetaan xam nga tamit émission yi oh. am na ci say soppe yoo xam ne dañ lay sori duñ la jege oh. duñ la xamal dara oh. émission yi la ñuy mën a seetaan mën la découvrir xam ne sama fan si bi kat lii la dund wala fii la jaar la fa demee mais jaare boobu dëkk nag àll waaw dëkk bu alima reer waaw du boobu yëpp nekk day sax mu koy xaar mu nga dund ko mu metti lool dëkk bu am lu bëgg def na am day sax man benn réparé bu ma ko taale hmm. noonu la fa demee ba tey ci question réponse mbër yi nekk ca kaw mbër yi nekk au sommet mbër yi téye ji mbër yi téye ji nekk au sommet kan nga ciy rêvé un jour arbitre siffle génn seen diggante nga war a bëre moom Malick Niang da ngay rêvé bëre ak Malick Niang MMA moom da ngay rêvé pratiquer MMA kon yow non non kon yow sa ambition sa ambition yemul rek ci bëre Sénégal fii ba bëre ji arène nationale da ngay rêvé dem gën a professionnel pour yenn bëre rek ay tawaatine yeeg maa ngi ñaar yooyu noonu waaw parce que gis si ñoom noonu gars yi li ñuy wax si ñoom bokkul. mbëru sam-sam teli karo jàmm gën yan mbër espoir nga fi gis ne ñii gëm nga ne buñ leen tegee loxo ñu téye lamb ji un jour. képp ku fi tax ngemb rek. non non. ñan nga gën a jàpp ne ñii leen tegee loxo mën nañ téye lamb un jour. képp ku tax ngemb. non non non ñan nga gën a gëm ne ñii buñ leen tegee loxo ñu téye lamb ji. képp ku tax ngemb rek. Hmm. képp rek. dina jàppale rek. sam sam tëli karo. ndax gëm gën a mbëri fi nekk yëpp. jom ak jàppale rek la. jom ak jàppale. te yéen jàppale bi tamit dafa des. non jom baa bi jàppale mais ñoom jàppale. jàppale bi moo des. jàppale ñu ay saafara. pourtant pourtant nag yéen pourtant yéen manqué wu leen ay ay ay autorité autorité yi kenn def si dërëm. am ngeen ay autorité jàmm gën Sika Mbao Diak Saaw. Eh, eh, euh, eh. mais am ngeen ay autorité laa wax. est-ce que ce que boo amee combat yow ak sa staff mafia bi. autorité bu may jox xaalis autorité maa ngi nii lu may wax xam naa mais mafia bi est-ce que dem ngeen seeti monsieur le maire. est-ce que mës nga am combat yow ak mafia bi ngeen dem seeti monsieur le maire bi bi maanaam biroom sax dama faa late amul lu mu fi liggéeyee ay après après après mooy loolu dina saakato eh, eh, eh, yooyu amu fi non waxal lu leer maire yi gën ñoo compétent ñun ñoo leen gën a compétent foofu non da ngeen di dem seeti monsieur le maire mais duñ leen jàppale tous bërëm amul policier mu mën a lekk sa xaalis jàmm gën jak saaw si kambaaw yëpp amul policier mu mën a lekk sa xaalis barki alxuraan amul maire boo leen di seeti mu jàpp ci combat yi amul policier homme de politique boo mën a lekk sa xaalis waaw loolu tamit teel ko wax tey rek ñu xamee ko noonu. waaw loolu la teel na leer rek ah, na leer de maintenant non na la mooy problème bi xamal la mooy problème bi xamal la mooy problème bi xamal la mooy problème bi ah. mbër bi nekk ci yoon nga jàpp ne kii booy bu ndaw la xeet ko

amul solo te balaa nga xam benn mbër dee fi rek faju nag nga fiy gis. Hmm. te na mbër yi ba muy dee sax boo ndox la reeree. kon da nga wax ne gaa yi ngi la ñuy def ndox la reeree ngistal def ñoom ñëpp policiers yëpp maire yi xamuñ dara maire yi man gisuma ci ku may jàppale. car gi nan ngay say soppe ñi la sopp ñi la bëgg yéene la nga am ndam na ngay dundee ak ñoom. waaw jaam ak salaam laay dundee ak ñoom rek. maanaam jaam ak salaam. ñu ngi bëggante toog yéenante jaam ku nekk la nga wax tam mu dëgg si yow. Hmm. loolu kese nan ngay dund ak soppe yi nan ngay nan ngay dundee ak say noon ñu ne nga xam ne yéene wuñ la nga am ndam yéene wuñ la nga avancé nan ngay ak hmm. say noon doo hmm. ne sa a def am xam boo nekkee ci la féete am nga doon da gën a da nga gën a xam ne yaa ngi koom parce que tey benn mbër fi teg loon dix defe du am noonu. waaw waaw waaw waaw ki daanu daanu daanu daanu daanu daanu waat. waaw ay noonu hmm. mais mais gars yi kuy avancé di avancé kooku mooy am ay noonu. waaw ñun sax ay noonu la yooyu nekk benn noonu la ñu am mooy suñu adversaire te su arbitre sifflé

naturellement yow da nga da nga firi quoi da nga neex naturellement. non firi no no stress ngay dund. happiness ngay dund. mais am nga anecdote sa temps booy wala wala benn léeb boo mën a léebal gars hmm. benn léeb boo mën a léebal gars yi wala benn anecdote loo dund rek yow. benn benn bërëb la gars yi maa leen waaye maa leen tudd. waaw bërëb benn la. dégg nga. jël bi ñeenti xale bu jigéen. waaw bu am ñeenti far. waaw. léegi waxaat ci kaw ba saa jëkkër ji génne rek waaw nekk ci quoi kay xale dañ ciy nekk xam nga bu jëkkër ji génne benn ak benn trois bët ñaa benn rasamaa ah. léegi ñu ci nekkee noonu jëkkër ji xëy rek tënkoon rek benn bërëb bi daw naaw ci ginnaaw télé bi kii dugg si ginnaaw rajo bi xam nga kii dugg si si si si bërigo diwtiir bi. waaw est-ce que mooy de keneen ki laaxut quoi. waaw keneen ki ki di gis bërigo diwtiir ki laaxut si mhm. a waaw. waaw kii kii dugg si si armoire bi. waaw kenn ku mën a armoire bi. keneen ki dugg si laaxut ginnaaw bi. keneen ki dugg si si bërigo diwtiir bi. parce que jëfe bi ñëw na waaw waaw waaw après. léegi jëfe bi waaw commencé na nii. waaw ba léegi ñëw maa koy ne umi ça va jàmm damay dem Guinée de Gala génneel ma jas neer waaw ay ay yow waaw kii baa ngi fi ko sim ngi fi mu ne umi jas bi mu li may nga yëre mu ne ko jas bi léegi ça va nu tijjee armoire bi rek waaw léegi gis gis bopp ak action bi waaw waaw ñu bopp action bi. waaw rek sa waay boo yëg affaire bi ay pungi sa teg ko mbóot nag jël ko fekk dem bay dóor rek sa seer <laughs> rek affaire mu ne ko mbóot la mu ne ko waaw mu a ko dem na. yaa may dégg. waaw léegi sa waay teg armoire bi. mu ñëw ne ko toogal ma ceebu diwtiir mu ne ko paa ginaar dégg nga góor yi ma ceebu diwtiir. mun léegi ñu duggee diwtiir bi sa man bi tëb mu ne ko yow nag kan nga diwtiir. <laughs> léegi moo ko taalama télé bi waaw saa may dégg sa waay di seetaan classe ko Matadal Barça léegi nag faru kii bi faru reng bi ndereng am nga bëgg rek maye kii Barça Barcelone waaw ñun seetaanee ba si yàgg rek piraat yi am saa yu piraat yi rek bëri tub mu e bu la eh. def yi mu ne ko dañ maa rouge mu ne ko rouge la dégg ko mu ne ko waaw mu ne ko may ma paas waaw jox ma téeméeru seet mu ne dañ koo rouge waaw moom mi laa ko woon ci ginnaaw télé bi télé mu ne waaw dali foofu waaw benn may pig am sol mu xam ne ndereng yi am nga xam waaw léegi mu def rek saa la ko taalama télé bi léegi wóobi sonn nag bëgg comme que ñetti bër yi feeñ na la soot na ci feeñ léegi mënoon nii a bu nga taal ah. da nga karaw bër bi def nii ah. wër la wër la wër la rek faaxat teel taay na ko wal wal wal FM 99 mu jóg à Dakar ba Touba doo leen sawaay teewaat borom boromaat xëccaat kenn saa ne ko kaw nag rajo télévision Fadjri ma a rëy côté am taabu taa daa am taabu taa daa am taabu taa waaw sawaay dëmbay sawaay dëmbay na duniyaa te saa ni mu ñaaroo dëmbay xëcc mu xam ne yuuxoo def joxe na fayal saa bàyyi ma ne alhamdulilah foofu la yem tàggat tool fi laa yem ak yow booy dootuma fi ñëwati waaw di gërëm gaa yëpp di jugu taar bi sama ñaawal santal damay ñëwaat damay ñëwaat sama booy la sama kii maa géré image am mais tey moo nekkoon première fois may déplacé ñëw seet si la xam nga la mooy wax ji hmm. damay faral di wax gaa nee naa leen mbër bu ndaw mooy mag doon mbër bu mag bul gis kal ki mu toll ci premier combat deuxième combat nga xeeb ko ëllëg ci biir mu téye làmb ji nga bëgg koo jël loolu la ah, gis nga gis nga gis nga kon nag tey li ko fii laa koy yemale ñu waajalaat leneen lan ngay tàggatoo waaw lu may tàggatoo daal di sant santam indi daal ak Seydou Diallo ak Mbonte ay Baye Mbacke Gouma ay góor a war xam nga. sa baat ca kaw sa baat ca kaw mafia jugu taar bi. ñu jaay waaw jibi seen ay booy yëpp. ñu nekk mafia ñu may toogal ñëpp ay njaago or xam nga ay njaago bi. xam nga jaaw nga xam di ko jaale maanaam. Mhm. saa may dégg ay Fallou Iphone. waaw sama américain bi. Mhm. gis nga fu jóge Amérique ba fii. Fallou ay kaw waaw lan leerul. comprendre nga. Mhm. ñëpp benn njaago. booy ndaw yi yëpp mafia jëf mafia mawti mafia day bi xam nga. mafia maara fokk bi yëpp. waaw man maara fokk laa noonu tuuti si laa maara fokk. xam nga. dëgg yàlla. te diggante ak mooy loolu bu baax a baax mi ngi ci game bi mi ngi ci. noonu fa demee jege am lu mu témoigné dèjà. sa waay ñëwul wala wala yow. naam ko ñëw rek. looy pousse ne rek. non non bul sori bul sori bul sori dañuy teel ne rek kenn moo ñëw nii rek. naam kenn ku ñëw rek. naam kenn ku ñëw seede rek waatal waatal daa guddi de waaw waaw mo fay ma maa ngi benn ziar tur bi la man man la Rinki Rinki waaw tur bi original na waaw tur bi original na mm. Rinki loo ma mën a wax ci calki ni ma ñëw seet tey calki dafa nekk xale bu yaru rek sal xale bu yaru mm. calki daa yaru bu yaru kay kii dafa rëb de lan kii musul rëb mm. su dëkkoon rëba su dëkk si koñ bi mbaadu waaw fii rëba soo dëkk si koñ bi ah, kon dafa dafa dafa neex waaye du moo lool kii moo dàq neex ndeysaan moog lem dañ leen a xëccoo instant bi kan moo gën a neex ay déet waay déet waay wàññil wàññil wàññil wàññil wàññil wàññil non non non non wàññil wàññil wàññil wàññil su ma ko yokku dama ko wàññi mm. kii baax sax lépp am na koy werante bu dëkk fii nii da koy werante sax mm. loolu la fa mbër mi loo mën a wax ci mbër mi eh, mbër loo ma wax mos moom moom mooy xale la bu teey jox mag yëpp cër jox tuutànk yëpp cër mm-hmm. fu mu romb dina fa toog benn trente minutes waxtaan ak ñoom kafa ñoom ñëpp ree waaw Ricky ma mën a seedal ci Thialki en tant que mbër mi lu mu mën a seedal si moom bëri na comme lan su ma ko doon wax boobu jigéen mm-hmm. mooy booy bu cool la mm-hmm. booy bu yar la booy bu respecté ay nit mm-hmm. booy bu baax tamit waaw noonu la fa demee noonu la fa demee mbër mi mbër mi est-ce que gëm nga ni mën na sori ci làmb est-ce que gëm nga ni Calki mën na doon champion. déggoo li ma la wax xanaa saako ba léegi. waxal nee la Modou hmm. laa ko may. Hmm. su joxul kuréel dama koy fekk gàllam ñëw indil ko Calki. yaa wax loolu. lan moo leen manqué instant bii nii. lu ñu manqué bëri na. comme lan. parce que amuñu ku ñu jàppale. su soutien. Hmm. jàppale bi moo des. moo des parce que ñun ñooy reyante suñu fikki dërëm suñu saafara booy ndaw ku nekk day indi ñaar dërëm kii indi dërëm. ñii indi juróom dërëm. ñu boole suñu doole topp ñu kenn nag topp kenn booy ndaw yi dañu dem jël seen saako dem jaay feeraay dem yóbbu ko fële dem jaay topp ñu kenn noonu la fa demee mais daal yéen gën ngeen seen mbër de telle sorte que ne xaaru leen ci kenn ku ñëw fekk leen ci ku ñëwul ngeen ngeen defal seen bopp ku ñëwul sax ñun dañuy dem léegi man la affaire bi. Mhm. affaire bi tàq tàq la. maanaam. tàq tàq la woon nañ trente oto sapeur mënuñu ko fay géej gi rëcc na fii barki demoo Ndiaye mënu fay tàq tàq bi ñun dañuy tàq rek dem. te affaire bi mu ngi si frigo bi ñu ngi ko muy glace boobu léegi dajee guñ ko wax ji wax ji mooy daal kon cal ki bari ko bari ko ci mbartal la du bari ko ci mbartal dégg la ma la wax waxal tàq tàq la hmm. tàq tàq la dégg naa la woon nañ trente oto sapeur sànq lañ fi jógee gisoo moo tax foofu tooy. Hmm, fii ni tooy tooy bi nii. waaw noonu la sapeur ñoo fi jaar. ñoo fi jaar na. tàkk na day dem. ko fay. kon gars bu ñun weesu nañ bërëgo mbartal. kon gars yi nañ jàpp si. bërëgo mbartal am na ñu ko mën a téye. Hmm. noonu la fa demee. kon gars yi buñ ci jàppee mbër mi day dem buñ ci jàppul mbër mi day dem. loolu mooy loolu mooy ñibbi yow. Hmm. waaw yàlla yàlla yàlla defal jàmm. non nag ñu ngi sant borom gaale bi nag. waaw mu ñu buntu xataal mën nañ fi toog tamit uhuh. mu ñuy siis uhuh. mais lépp rek da ko def si teewu bakkanam uhuh. ak si mbaaxam ak si yaroom dañuy romb nuyu ñu suñ soxlaa ndox si lañuy dugg bëri nga cinquante mille la ñuy tegal fii lépp day yee wàññil wàññil wàññil wàññil wàññil wàññil booy yee booy booy booy bu ma fon ko de waay yow non non wàññil yow yaa ngi wax ay waxu sapeur léegi waxuma da nga am ay wàññil waay yow waay yow man yokkute rek man yokkute rek kii di yokku rek di yokku rek yaa ngi wax tànk ba tey mën noppi nga yokku rek comme ça yokkute rek waay yow bëri nga lay teg fii nga la bëri ko ndox la fiy teg sedd bi lépp ay glacé lépp ay glacé pour everybody ku bëgg naan rek naan mafia njogitaar yi mafia mafia la na ci waaw soxla soxla ganun? Ha? Ha? Sok lang dok. Wow wow. Tapi aday. Masih aday ba? Boy, kata na parang diyan jugal. Jugal. Jugal. Gay kan mo nyo? Kan mo nyo in person ha? Anto ay? Sa eh. Eh eh. Sa eh. Eh. No, sa eh. Yo kai. Kai. Kai ni. Sa ko ba tayo ang plate? Kai ni. Yo, may may. Kiki de. No, no. kaay kaay mi ngi plaidé sànq ba tey na toog wala ngaa ñemewul li ngay wax sànq ba tey yaa ngi fay toog fee di ndelu ñu lay woo nga am lay piqué waaw mais li nga dégg nañ ko sànq ba naan suñu mbër mi la ñuy topp di am lay piqué léegi bu ñu la joxee parole kay nag waxal waaw yow bu ñu leen waxal looy wax su ma leen wax li may wax waaw maanaam caa ki rappel kii mooy sama Modou Lo mooy sama Balla Gaye waaw kon doomu soosal laa hmm. yaa ngi comprendre Balla Gaye laa leen topp ma gëmee sama mbër. Thiel ci mooy sa mbër. mooy sa mbër lépp mooy sa Modou Lo mooy sa Balla Gaye. Modou Lo bàyyi naa Balla Gaye bàyyi naa ñëpp gëmee sama mbër. léegi sa mbër mi fan nga jëm ak moom. su ma fu ma jëm ak moom. waaw la. Hmm. am combat. Hmm. ma jàpp ci ñu dem yàlla may ko ndam. jeex na après mu jeex xaar leneen. gëm nga ni mën na doon champion. lan nee tax kii doomu ñaareel doomu demee nag. kaawul duñ ko ñaanal gudd fan. kese demee. maanaam kii yàlla xool ko. loolu la fa demee daanul foon. dafa lu koy def. foon la ñu mën a def parce que anniversaire la woon. voilà foon la ñu mën a def ci anniversaire la woon dama lam ba yàq mooy yàq. la ñu mën a def ci anniversaire la woon dama maa tëggee dama mel ne ku ñu foon. kii xale na benn yoon lañ la mos a foon. anniversaire la woon. waaw day sànq saa yu ñu foonee la ñu wala. xari jinne seet no ko ko lay bi seet xari jinne yow lu tax mu ko oo dëgg de yaane yow mbaa correct rek man man moom nekk bu correct yow tamit bu kon kii kon man fi ma dugg fi fan la ni ah mooy fi ma ñëw fan la eh? Eh? fi mooy cité des eaux fi mooy cité des eaux gaan maa lay ziar gaan xoolal xamal laa yoo xam da nga cool nga correct dégg nga non non non nga xool déglu ma déglu ma da nga cool la nga correct ñu lay seetaan nga wax wax joo xoolal wax ju jaar yoon quoi xaala xaala ala xaala ala de pulaar la waaw mooy wax xamul kuy naxaale noonu mi nani pulaar e mi nani pulaar maa lay ziar min mi xaal mi xaal pulaar togol maa xaal pulaar kay gaayam tur bi nan la eh, waaye lan nga ci mbër mi mbër mi ñëw seet ci calki maa ko yóbbu esat xanaa boo seetaanee combat yi paase bi ñuy gis muy sat yaa ko yóbbu esat dem esat waaw ah. tey moom laa ñëw seet si la fa demee naa a kii daf ñoo jaral ñu mbër bu ndaw la mais dafa am loo xam ne man dama ko gis ci moom jàpp naa ne daal saay saale bandi santale ci biir géew day joxe lépp mm-hmm. day bëre tey combat passé combat passé combat bu mettez, mettez, mais finalement avec la manière parce que ndaw ba nekkee mbër nga ne da ngaa bëgg teg si da ngaa bëgg firi si lamb da mhm. ngay respecté sa bopp xam nga respecté sa bopp bi lan la lan la mooy nangoo entraînement nangoo entraîné di lekk ba suur di heure di lekk ba suur di tëdd heure mhm. te moom mi ngi ci waaw lan moo mu firi Chelsea lan moo mu firi nekk nit ko xam ne foo kaf ree non stress li ngay wax ni man la gën mhm. parce que biñ mu si biir ci mbutaay ma toog jàkkaarloo nga ba kaa ba xaw ko yëram naka yow ba xam tiitoo amoo stress mu ne man xaw ma stress Makam lool ma xam champion fu ñu dégg mag yi ko dégg est ce bu amul stress stress la koy daf woon lamb ja bu ragalul lamb xam waaw waaw waaw ku neex utal waaw ku ku utal xam nga waaw bëre du daan ñemew du bëre du daan sa baat kaw sa baat kaw fii champion la te inshallah champion bu ndaw champion bu ndaw champion bu ndaw parce ñun sam-sam champion ñun dañoo bëgg dégg champion bu ndaw la champion bu ndaw la un champion la champion bu ndaw la petit champion la mais da nga gëm day doon grand champion barke alxuraanul karim ma kaa gëm man su ma sama lépp rek maanaam di jàpp ni rek maa am dama koy jàpp combat bi passé dem naa ba nar a mhm. ba ndax combat bi passé combat bi passé d'accord laaj laaj ko làmb ja nan fa xeex nan laa fa def lu ne ndax moom tey parce que xam nga la moo tax maanaam dafa respecté lu nga xamante ni mooy entraînement non non non non non dafa respecté entraînement combat bi passé moom combat bi passé entraînement moo ko ci génne bëree na lu rëy mhm. mais entraînement moo ko ci génne parce que bu amul woon entraînement non du résister te loos xamul ki mu doon bëreel yoon la d'abord dañoo waxoon ne kooku dafay daan looloo ma si gën a neex hmm. ñëpp dañoo waxoon ne ki muy bëreel dafay daan mu jàpp waa ji bëreeloo ko xooxloo ko daa di koy daan xam nga loolu entraînement la lan moo leen manqué li ñu manqué moo jàppale rek kese yéen ñëpp loolu ngeen di jooy jàppale. non fii ñun ñun fii kàmb gi la. Hmm. fii pëtëx bi la. Hmm. fii daa métti ñëpp a yem. billaay wallaay. ñun fii lu ñu am dañ koy boox. naa la ñun fii noonu la dundee. dégg naa la mais moyen moo fi manqué. soutien bi moo des soutien bi moo des nag ay pourtant de non naes am nañ autorité xam ne buñ buñ gesté woon jàpp amee combat mën na ñëw fay euh, jënd cinq bloc te ñëw fay dix car xoolal am nañu autorité mooy autorité nekk dëgg sërëx la maanaam ay ndëgg sërale ah seen bopp lañ fi nekkal hmm. dañuy lal la basan rek ñun fii yow ñun autorité xam nga kañ lañu xam ne am nañ autorité nawet ba nawet bu koñ bi taawee ndox fii su ma la wanee photo yi nekk sama téléphone nga gis fii ni muy mel boobu la ñuy doog gis autorité xam nga lu ma lay wax dégg naa la mais barki alxuraan kër dañoo war a mën a jàppale champion yi fii ay champion ñu nekk yu bëgg bëree di entraîné di daj lu nekk si tafes yi di daj lu nekk si din boy dañuy jugé entraînement duñu am luñu lekk ndox la ñuy reere barki mam cerno ibra faté dañuy wër fi di ka kaaja billahi wallahi boy nday ñoo lay jox ay 100 francs fukki dërëm ak ñew nga nangam non la fi démé ñen ñi di jaay ferage sax di la jox fi kamb gi la barke alquran non la démé nak non la fa démé xala ala moy lan xala ala moy wax amul sama logo la bo démé ci cantine da fay di nga gis ñu dessiner ko xala ko wodi xala moy wax amul da eh, ko wodi wadde wax amul. waaw bu wax amul lan bu wax amul lan moo am jëf rek. ah jeex na foofu laa bëggoon nga àgg. wax amul. mbir mi jëf kese la. jëf rek de l'action. jëf rek jàmm si yow. incha allah yow jàmm booy yàlla war nañ jàmm. nañ jàppale booy bi. incha allah parce que alxuraan buñ ko jàppalee day nekk champion. incha allah mbir bu amul stress day nekk champion te kii amul stress. d'accord yàlla nga jàppale. jàmm si yow. jàmm si yow bu dee am na kenn ku mën a ñëwaat rek une personne rek. une personne rek. yaa ngi yow yaa damm drapeau bi yow voilà yow. kaay kaay yow kaay cinq mandat dépôt. dégg nga. cinq mandat dépôt. cinq mandat dépôt. yaa lan mooy cinq mandat dépôt. la lan mooy cinq mandat dépôt. lan mooy lan mooy cinq mandat dépôt. dégg nga la wax. booy bi nee cinq mandat dépôt di bandi pour ne yow boo ñëwee nga napp ma quoi man ma xaw laa ragal quoi. non loolu duñ ko namoo sax parce loolu du ndam quoi ay cinq mandat dépôt pour yow boo ñëwee man ma xaw la man ragal laa poser yenn question yi quoi. quoi. non mënoon nekk mënoon nekk ragal ndax sa nguur yaa ngi teew si tarkindaay mënoon ah, la fa demee tur man Ndiol. Ndiol nan. Ndiol Bane borom njugu taare sul tàng yi nangañ kaw gi ma fi yaa njugu bi ñu ngi nii gën a. jël ma fi ay jéggi waxi suul. jël bandi borom dugg taari. waaw ah, maara fokk bi. déet déet déet déet. sa boobu gis nii nii. fokk mooy lan. ma fi mën a fokk mu ngi fii. ma fi ay 42 ma fi ay dugg taari. waaw mais lu tax ngeen firi. lu tax ngeen firi. booy ma leen ñu tudd. ma leen tudd bu mag ñi di wax xale yi dañoo war noppi ma ne. waaw lan moo tax ngeen firi. ñun. waaw ah, happiness bi lan la. waaw kër dëkk faa dëkk moo tax. non mais lu waral happiness bi happiness. maanaam feeraay ñun dañoo judd fekk fi xaapit mees xam nga màgg ak xaapit mees yoroo xaapit mees moo tax bu saa buñ gisee xala ñoo ñu naan toog ceene waxtaan ca foore chaque jour nekkul ñu fi teewe ni moo tax gën a ñëw de chaque jour boo boo yow booy fi lañ toog mag xale ndax ñëpp ñoo bokk toog kon ñu toogee nii ñëpp ñoo bokk toog loo bokk ak calki kiiriiri yàgg yàgg moo leen boole ah, waaw ndeysaan yàgg ngeen lool yàgg moo ñu boole kon xam nga ko bu baax sa waaw yow tamit xam nga ko boo yor fii calki ko xam calki ñoo ci jool kon mbapat yéen a daan ànd àndoo te ñoom dund nga doon dégg ñu koy firi man maa maa ngi nii doo daan def nga ne dund nga doon dégg ñu ko taar nga doon dégg doo dégg ñu ko taar ñu ko taar waaw waaw waaw si naan ñu ko taar kay ñu ko taar kay xam naa eh, ñu ko taar pulaar la man naal pulaar la kii dama nekk muy daanoo yow yaa daan ànd ak moom fépp fu mu noppati da nga ma laax kii du ma faay yow ba muy dem tëngee yow la woon man la maa la ko wax sànq fii ma ma taxaw yow yaa jël drapeau bi waaw ba muy daan doomu jokkul drapeau ma ma ànd ak moom foo jëm ak calki fan ngeen jëm. calki waaw bu gën a doon mu nekk mu nekk roi des arènes. roi des arènes. waaw dugal ko jàmm gën si kàmbaaw indi ko fii ci Tëli Karo. Arafeera ñàcc. teg ko fii la couronne roi des arènes. avec calki. c'est possible. mun naa ne bu nee la. quatorze ans la am. yokkal yokkal. quatorze ans yokkal. yokkal quatorze ans yokk ci dix ans. Eh. waaw. eh. Sigi Mbaye 14 ans yokk ci 10 ans. yokk ci 10 ans. kii boobu ndey la kii boobu 14 ans yokk ci 10 yokk ci 10 ans muy 24 ans. kii amul 24 kii amul loolu. génn gi kii amul loolu. kii xale bu ndaw la foo ko si ñëwee génn gis nga ko. sax muy kara ana sa numéro. muy bi. xale bu ndaw la parce que boo am tuuti waa Mbacke. ah gars yi ma fi yaay ñool ñool ñool kon yéen ni ngeen di dundee kon ni ngeen di dundee xam ne boo demee tamit ni ngeen di bàyyi ñu toog waxtaan ndeysaan barki borom Touba Mbacké foo kaf rek foo kaf foo ñun ñëpp a far boo demee léegi laa xam ne boo fi ñëwaatee da ngay ko jaay toogaat nii ko naturellement yow ba nga ñëw nañu fekkee hmm. xam ñu woon sax da ngay ñëw ah noonu la fa demee waa ñëw fekk gars yi toog nii mag xale foo far ñëpp toog waxtaan ñu fi da leen xam quoi carrière mbër mi ba fan ngeen jëm di nga ma la wax ko ci roi des hommes toog ko fii fii mbër yow mbër bu dul calke da ngay xaar ku dul calke ku dul calke ak mbaytin mhm. baaba jaxal woon nag mi da ngay ni kenn ñi lañuy toog te ñii yemuñ ñu kon yemoo leen ñu yaa kay merci waaw mbëri yebuñu leen ñii hmm. ñii yemuñ de hmm. bu ngeen daan demee ne gisoo nii ñooy jaayante li may wax ne i cent hmm. di leen jox ñuy reer parce que sëñ Tuuba boo leen léegi gis ñu nii chaque combat day bu bu lu yii mel léeg-léeg ñu am ans. memel. Mhm. bu mhm. la ko seen paas ak seen i jël kaar dem. c'est ça dem supporter ji. te booy booy fi nga gis ñu ne bu ñu ñu dem mhm. xam nga ay njëkk a jaay ñun laa am ay njëkk a jaay. déedéet maanaam ñu yeb. lamb ji lamb ji ñëw nga gis lu garaaw jet privé mu soo gis lamb jet privé booy wàññil wàññil wàññil waaw ah, mën a soob foo jëlee jet privé booy eh eh, eh, eh bu ma jabe booy eh eh gay ne gay ne eh nga eh, xam ne jet privé eh nga xam ne jet privé dëgg ma la wax wala waxee jet privé xanaa fa jet privé mooy saret Sénégal may déglu Sénégal yow may déglu ay yow jet privé mu gis loolu mu gis euh, euh, biir arène nationale jet privé la ñuy wàccee foofu yéen problème da ngeen xaar ngeen ngay nii waxal mu dégg la loo xay wax Grand Yoff laa mujjee bëre ko ñu dof nday waaw dof nday di waka wakalu ah. soom la moo tax boolewu ci kii ba muy wanga wangalu kii xam na fu mu ko jaar maam ñun xamante ne kii lañ mën xamante ne suñu biir mais am nañu nekk fii si wax ay cercle da ci kii lañ ñoo yabaate toog leen foofu ci musul wax man maa tax mu wax waaw ah, merci daa am nu mu demee noonu la demee nag xam nga rek def fi di wax ñu tukkee ba gars yi di la tontu waat ak nii ak naaj jet privé jet privé jet privé kon kay yéen soxlawu leen ku leen jàppale kon si gën am leen jet eh, privé kay eh, eh, waaw bal hmm. xam bopp la yu rox ay fecc hmm. waaw jet privé d'accord lan nga wax lan nga wax autorité jàmm gën pour ñu ñëw jàppale kii naa tamit ba bépp autorité bu ñuy dégg tamit xam rek mooy loolu jàmm gan si kaam mbaab ñu ñëpp benn la yaa may dégg ku si am loo mën a dimbale sa mbokk nga dimbale ko ko sûrement gone yi jàmbaar yi nga xam ne mooy bu ñu jógee dañuy gën a tur suñu sam-sam xam nga dama jàppale ko waa maanaam xam nga koo xam ne bu génnee nit ñi day maanaam day day mobiliser waaw day mobiliser lu bari waaw waaw mhm. xam mhm. moo tax gars yi xam mhm. dañu xaw a nii nii mooy loolu noonu la fa demee da nga xam manqué tudd bralon bralon waaw kon daal gars yi nañ ñëw jàpp ci dañ ñëw jàpp si ay champion bi rek ci jàppee day baax day baax barki borom Touba Mbacké ñu ñoo bëgg làmb xoolal xoolal gars yi waaw xale yi waaw dina ni ci araka ma ngene ni doorkat waar lañ ñi moom tëni lañ sol moom tëni lañ sol ñi sax lañ awé jàmbur waar lañ moom barki seen Touba Mbacké waar rek waaw très bien barki yàlla ginnaaw loolu nag waaye xoolal ñu lay sant yow mi fi teew jaajëf jaajëf di sant yow mi fi teew ba nga doo fi ñëw noonu la fa demee xam nga noonu la fa demee loolu bu baax waaw bu neexee xam nga mooy loolu nga ñëw mos ñu toppal ñu rek gis ngay def man mm-hmm. seen yoon mais depuis boobu léegi suñu yoon yaa ngi fi xam nga la fa demee def lu nice xam nga jàmm yàgg loolu noonu jàmm rek am solo at at na yàlla xam moom jàmm ci yow waaw jàpp na rek gën rafet nañ lool rafet na kay ceele li ñu tëj acca eh calki calki calki non kay tëj kay tëj kay tëj kay tëj kay tëj kay tëj Let's go! Let's go! waaw waaw maa lay jaar waaye bu wér tur bi nan la mooy eh wàccal Modou Modou sen. Modou sen. Modou sen. waaw Sène yow daa mel ni nga de yow sant bi yow daa nga bu baax sax yow sama Jam nga jaamu tukulóor nga man jaalaa sant man pël la déedéet man maa sa buur bu ma ko de gën bu ma ko de histoire la non non ma nettal la bi boo bëggee man ma nettal la bi yoroon ñoo yoroon nag yi pëli ñoo yoroon tool yi lépp lu fi baax lépp lu rafet pëli ñoo ko yoroon léegi séeréer yi ñoom dañoo réer après pël waaw waaw garaaw waaw léegi nañ génn foofu tool nañ baax bu set dégg nga eh, loo ma mën a wax ci mbër ma seet si eh, calki ah, calki de li ñu xam si moom hmm. boobu yaru la de boobu yaru la xale bu am avenir la am avenir waaw ndax gëm na li muy def quoi hmm. xam nga nit lépp looy munti def soo si amee amour rek bëgg ko rek su <laughs> la si nit ñi jàppalee rek da ngay doon champion suñu <laughs> gox bii nag liy problème bi <laughs> mooy jàppal bi moo xaw a des tuuti jàppale bi moo des moo des mais buñ ko jàppalee mu dem mu dem hmm. yow gëm nga loolu man gis naa loolu gis nga bëri bi ci calki am na ko. am na bëre bi. waaw am na fula bi. am na fula bi tamit. waaw entraînement bi. entraînement bi récupération bi kañ laay wax sax. da hmm. kooku après man ak moom lay doon. Hmm. ndax moom kër bi dafa ouvert quoi dafa yaatu. dafa yaatu. nit la koo xam ne dafa dafa dafa dafa firi. soo xawee ñàngal nii sa karam sax mu yaakaar ne da ngaa mel. ndeysaan yooyu nag si mbër dangay dem bu mu yàgg dangay def benn xam nga mun na la indil stress nelaw quoi. Hmm. moom il faut muy récupérer mhm. loolu rek moo des ci moom récupération waaw bu entraîné lekk récupération entraînement moom am na ko hmm. entraînement am na ko ndax xale la du tox mais lan moo ko manqué mooy li ma la wax rek jàppale bi rek jàppale bi rek moo ko manqué jàppale bi rek buñ ko jàppale rek mu doon champion ah, day dem sonn. yow gëm nga ko. waaw gëm naa gëm nga ni mën na doon jom waaw mun na bëre. waaw te yi booy topp topp ko. du tox du naan. Hmm. te jigéen ñi xam nga ni ñoo yooyu moo mun a gaaw a yàqal mbër. d'accord te yooyu yëpp nekk si. gëm nga ni mën na doon un très grand champion. champion am nañ si moom yaakaar bu baax. da koy doon yàlla bu yàlla tas yaakaar. da koy doon jàmm si yow moom père kaay nii kaay toogee nii moom mu tëj kaay toogee nii. cal gi cal ngay tëjee. lan ngay tëjee tey émission bi ñu waajalaat leneen incha allah beneen yoon. ci kaw ci kaw baat bi ci kaw. sëñ Moussa Seydou Diallo Mbow Beneen. Mhm. ak baat bi ci kaw. waaw sant booy yëpp. Mhm. booy yëpp maa leen sant booy Paa yëpp. Mhm. waaw képp ku ñëwee tur Sam Sam rek xam nga dara daw sama mag. waaw borom Liberté 5. Bakary Bakary. Berzi l'international sénégalais. waaw ak Fatou Badji. waaw Seydou Babon. waaw Dimitri Uba lu mu nekk Uba. Mhm. waaw ak Aminata Aminata Fass. Mhm. Seydou Salama maa ngi leen di baax sama yaay. dama laaj dama laaj toog. ndeysaan waaw ak ndey bii nga xam nga. Mhm. ndey bii nga yaay booy bi. kooku man moom moo yàgg. ndeysaan xoolaa ne kër ay toog ndey seen xam nga. kër Soofe ñëpp Sam Sam ñëpp. ak booy ndaw yi ma fi ak jënd yëpp ay baaxal mooy ay Ismaïla ay Adama Abdoulaye ñëpp maa leen di gërëm. waaw noonu la fa demee baar beeg yëpp. jaajëf dañu seer beeg yëpp maa leen di gërëm. noonu la fa demee. jàmm ci yow sama gaay géwél sama géwél maa koy si naat gërëm ñëpp sama gaay yi mi ngi noonu. mafia ferme sax mafia day beeg. Oh, mafia pour bu leen dégg doo bu leen dégg booyee sa fin tey ñu woon Sam Sam Teli Karo seen émission victoire après combat ñëwoon seet si kan Thialki Thialki pensionnaire de l'école de lutte Bosco Sow moom la ñëwoon seet si mbër maa ngi ah. c'est un jeune phénomène xamé leen ko rañé leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax dafa bok ci lamb mi ngi jóge ci souf di daaj di jëm ca kaw kon mu ngi nii ah adversaire yi wax na ak yéen nee mi ngi ñew dal sen kaw yeen ñi mu wara a néna nee mi ngi ñew dal sen kaw waajal leen bu baax promoteur yi dama leen di lancer appel dalen leen diko setti diko jox ay combat mu dugg ci lamb ji di bëree du woné boppam sama gaay yi lii la won fi la won ci jamagan gën Fass Mbao sen émission victoire après combat avec kii ma leen di joxaat di daje ba beneen yoon ziar ziaraat jaa ngeen def sama gars yi